xamnañ li fi Gaspard joué xamnañ bi muy nek par socialiste di nek ci pouvoir li nga xamantene ne ni Gaspard do na ko joué daan ko andil Wango de ko ko xeexal kon suma ma fi damay am contenté fekk fi wolof yi fekk fi euh, séeréer yi fekk fi catholique yi dans la globalité ñu nek ben lolu lu ñuy neex la mais li suñu intervention bi ni ma wax ci turu suñu baay à Souleymane Ndiaye Brin di haut conseiller des collectivités territoriales moi institut bi nga xamantene Ousmane Tanordien mon moo ko doon jiite te defe naa am mu ñëw wër ci pour rendre hommage Gaspard ak diko won woon Souleymane Ndiaye Brin bi au conseil des collectivités territoriales la né kon Virginie wax tu ci loxo yu woor la nek ci loxo yu woor la nek muy ay mag ñu wan ñu Souleymane Ndiaye Brin ak Saliou Ndiaye ak Dave Ndeye Sek, ñun ande, ànd ànd bi waral xëy ma expliquer lu tax ñu tudd waa Thiès te loolu defe naa su ma ko waxee ñu bari dinañ ci dinañ ci gis ku ne gis na at yi ñu génn ñuy wax nitu Thiès benne bàyyi góoru Baye Fall gu baax di wax ne nitu Thiès mom, nitu Thiès la wax nitu Thiès yep dañoo dangereux ndax genn wàll gi 80 pour lawak lu ñu la wax du mu way bo xamantene ni ñun ñi liggéey Dakar wala fu ñu munti dem suñu démé bu waxé ak luñu wax lu mu munti am solo da nga leen di gis ñuy wax que ah nitu ties la rek xam nga loolu way bu bu bu ah c'est une chanson qui est très désagréable à l'endroit des Thiessois mais ñu ni Thiès ñi fi dëkk ñëpp ñu ay wa nitu ties ndax xam nañ li tax ak ki tax ñu tuddee ñu nitu ties tala ci gis-gisam mune man en 2019 dama andon ak ay nit ñu and di woutal Macky Sall Virginie mi def ci liguey bu mak ba Macky Sall gañe ay bureau yu wot fini nii ay som ci yenn bureau de vote yi Talla Sylla APR ak Benno Bokk yakar xex ba Macky Sall falwan falwat alors que ñi nga xamanteni ni tay ñoy nitu Cees ñom dañ doon xex pour Macky Sall du falu tey ña taala doon àndal pour Macky Sall falu ñooña ñoo ñoo bëgg ne taala nar a wor taala dem ànd ak ña doon xeex pour taa Macky Sall bañ a falu est-ce que loolu ñun wàccees war nañ koo nangu parce que du ngor du jom du fulla du fayda kon nitu Thiès ak waa Thiès ñoo nekk ci jànkaarloo ci élection yi du beneen liste parce que voté beneen liste mooy voteel waa nitu Thiès yi pour ñu gagné xam nga lu tax

ñoo yore fas wi nga xamante ni mom la taala la yore won ak ben nobel ko yakar di xex pour Macky Sall falu waaye nak bi ñu nekk ni wa Thiès moy ñi nga xamante ni nii ñoo yore bulletin bu am caabi bi caabi bobu lañuy ñuy chaîne yi nga xamante ni nit chaîne won nako wa waa Thiès ba japp ne mo leen mom tay mu mel nii suba mu mel nañ leen bañ te voté liste wa Thiès bi loolu mo nekkoon message bi nga xamante ni bëggon na ko transmettre nu xam ko waajal ko te dara ba ñu ñoo fëkk ndax dana nu andi xaalis bu bari jàpp ne loolu dana continuer du dox yéen jigéen ñi ma leen di ñaan xaalis boobu buñ leen ko joxee jël leen waaye bu leen fàttaliku bu leen fàtte mukk ne ñoom dañoo jàpp ne dañ leen di jënd si ki la jàppee ku matadi nag da ngay xam li nga xam xaar ko si taatu ndaa la bis bu élection yi jotee ngeen jël bulletin bu gris bi nga xamante ne nii dafa am caabi bu marron bi ak bind bu marron dugal ko ci kii bi pour ñu won leen ne bés ni tey tekki nañ suñu bopp ñun waa cees ñun ñoo moom sunu bopp te Talla Sylla la ñuy bëgg mu continuer di continuer di doxal ci mairie Thiès bi ak Virginie ak man ak Ousseynou juuf ak ñun ñi ñëpp ànd pour que ñu mën a liggéeyal Thiès waaye nag ci jom ak fulla ak ngor loolu moom moo am solo loolu laa bëggoon a wax nit ñi quartier bi ñi dëkk Wango ñi dëkk Somme ñi dëkk ñetti kàdd ñi dëkk Grand Thiès ak samay dëkkandoo yile bu leen nuyoo di leen gërëm bëggoon naa leen wax tuuti ci li nga xamante ni durant ci suñu màndaa bi nga xamante ni def nañ ci juróom-ñetti at lu ñu ci liggéey ak li nga xam ne moom moo des te ñu doy koy tuddee perspective li ñu doon liggéey ci biir ba ñu nekkee ci màndaa bi ñoo ngi doon jàppale nit ñi ci secours yi ñuy wax aide Pâques ak edd tabaski amoon na benn appui ba nga xam ne comme dañ ko doon faral bu tabaski jotee imaam yi dañuy am appui làbbe yi paak bu jotee dañuy leen di jàppale ñoom itam dañuy am seen appui réalisation bi tamit contribution ci éclairage public bi maanaam ci mbedd yi gis ngeen ne ñu fi juddoo ñëpp xam nañu ne commencé di changer tuuti ci wàllum làmp naam bare ñu ngi doon isit di faciliter nit ñi ba nga xam ne ku ñëw ku bëgg a këyit dina balaa muy dem mairie di rang da koy indi bu ko indee ci man dina yomb wala bu ñëwee fekk ma foofu itam dina yomb pour mu am ko te du rang du yàgg te loolu defe naa ne moo doon suñu wàll donc waxoon nañu ne wax naa na accès ambulance manam, ndax dund ak feebar ñoo ànd daan nañu gis ay malade bu ñu dem mu am jafe-jafe transport suñu woowee ambulance bi mu ñëw yóbbu ko doon nañu itam comme ni ma ko waxee dundu bakkan dundu ak ñoo ànd bu dan am jafe-jafe ci ku wàññeeku ci ñun ci suñuy mbokk ci suñuy dëkkandoo bu ñu ma waxee bu ma wootee corbillard bi da doon yomb ci ñoom mu ñëw nit ñi tow fii tey ñoom ñoo seedeel seen bopp ne man mi Virginie dama jege population bi nit ñi ñoo ko wax nee nañu teew ci événement bu mënu am muy nakar muy bànneex nee nañu itam maa ngi jàppale population ñi nga xamante ni dañoo feebar te dañoo néew doole nee nañu itam maa ngi doon jàppale nit ñi ci p xam ne net daan naa ci jàpp ñu ut ay peinture di ut aussi pour ñu mën a ra bale foofu ba nga xam ne kuy ñëw sa siyaare sa ay ndem si yàlla yi kontaan ndax béréb bu sell lay doon donc wax nañu ne ci période covid 19 ku nekk xamoon na ne nekkoon nañu ci période bu metti ba ñit ñi doon xalaat ne fan lañu ñu war a jëm ak taalibe yi jaaxle di wax ne ah, bi de gën a ragal waaye yàlla suñu borom ku ñuy wax le maire Talla Sylla mbaax ak ci paspasam ak ci bëgg doom nekk taalibe moom moo créé woon waañu daara ñu tuddee ko woon waañu daara ñi nga xam ne dañ ko doon jël di ko yóbbu ci daara yi durant toute la période mon nekkoon 99 je jours man Virginie Ndion, ma seul catholique lu lan moi ma dialogue islam Dans le maire Talla dafa jaar ci keru je yep, jaar ci monseigneur André Gueye wax kone, Je dama bëgg tok, mën di di togg di leen yóbbul ci seen daara monseigneur rafetlu loolu lool mu ne ko am na kenn ku nekk ci yow dinaa ko yebal mu ñëw foofu loolu moo taxoon waañu daara bi yépp pendant quatre-vingt-dix-neuf jours maa ngi ci woon guddi ak bëccëg te loolu itam mbégte la woon ci man ndax tey jile mën naa leen wax daara yi am yépp ci biir Thiès te yàlla suñu borom dimbali woon nañu ba période bobu ba corona bi je ben ci ben am kon loolu tay ndam la te sante yalla lolu mo catholique dama bëgg ñu comment rendre au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait comment Seigneur du salut en évoquant le nom du Seigneur. Nakalaye lay Yalla timba ci mbaaxaayam ak ci lépp li mu ma defal loolu mom lay woy bi di tekki kon ci limu ma defal ci durant wu huit ans de bi ma nekk ci mairie ouest ma bokk ci coalition bi ñuy tuddee waa te le maire Talla Sylla jiite ko mu teg ma nag ma nekk quatrième ci liste proportionnelle donc tey mën naa leen bilan bi ma def ah yéen yéenay samay mbokk yéenay xool ndax sama teewaay ci mairie mën na nañ ko Euh, reconduire wala mënees nañ ko bañ a reconduire loolu laa leen doon wax jërëjëf.